di ba vendredi man ak sama team télévision Futur Média alors tout de suite on retrouve euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye sama waa ji jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maaleykum salaam maaleykum salaam tey njuy naa la de waa ci loo nekkoon sant yàlla di daw yaa ngi yaa ngi daw mais Pape Cheikh waaw euh, gis nga bijou soutien boobu muy wax waaw <laughs> bu ñëwoon Sénégal quelle minute lañ koy ah. yóbbu bu ñëwoon Sénégal waaw quelle minute lañ koy yóbbu quelle minute <laughs> quelle minute ah. Euh, Pape. waaw ñaata lëf nga dese. Euh, alors dama lay présenter waat lëf euh, de Paki ah. waaw alors ça c' est de Bijou. am na borom. ah y' a l'œuf de Bessel. am na borom. y' a l'œuf de Baye Serre. am na borom de Baye Serre y' a l'œuf de Exidex. ah d'accord voilà maintenant il reste l'œuf de l'œuf de na Mac. waaw ah, mais par hasard si vous avez un œuf qui traîne rek. Ah. par hasard boo amee. Euh, boo amee ëf euh, buy lëf luy traîner. waaw waaw yittewoo naa ko. waaw d'accord euh, am na am na poule buy traîner nag. <laughs> non soxla mooy poule de. lëf nga bëgg. non dégg nga lu mu wax. nee lëf la bëgg. soxla mooy poule voilà am na am na bu dijj bu fi de. <laughs> bi de dijj na weex na xalaat. Pape Pape. xoolal bi. mais Pâques la ah Pâques. Pape. voilà on ma. waaw maa doon laaj nañ ko bàyyi. <laughs> laaj laajatoo ko Euh, Maria Maria Dominica ba observateur ah. <laughs> Eh, et Maria elle est na nee na ngeen soppi ko yendu leen moo di ngalaxi. parce que nous a fait un texto ce matin. merci beaucoup donc benn kon bii nekk ci digg bi. waaw c'est l'œuf de Maria. yii <laughs> Pape. waaw jërëjëf bi. jërëjëf. jërë ngeen jëf. doore yéen a kaay ñu xëy na observateur. mi xëy dikk ak ñun ci conseil des ministres ba doon am ne Macky Sall euh, ci kaw mu ne suuta accélérer di ko def aku làmmiñam na leen dal lu aju ci ñi ñu takkal ndombay tànk ñoo xam ne dafa mel ne xamuñu responsabilité bi gàll ci seenu ndodd ba tey observateur dañu nettali Macky Sall lam wax ay ministre am ca conseil des ministres moo di nee am na takk bu wér ci ne am na ministre yoo xamante ne ji lañ leen sant defuñu ko incompétence bu mat sëkk la wane ci seen liggéey Macky ne loolee dana ko lijjanti ci anam yu wér leneen lu wér loo xamante ji juddu mm, na ci moderniser diwaan boobee di ko ak jamono diwaan bak na mu enclavé woo ñu daal dindi loolee taxaw askanu Kédougou ba tey ci loolee lenn ci dogalu ñu jël bokk na ci 206 de classe di ñaari téeméer salles de classe ak juróom-benn yoo xam ne danañu ko tabax ren ci yoon wi Kédougou njiitu réew Macky Sall nee na dinañu ko euh, goudronné euh, ku wax Kédougou xel day dem ca or ba ñu fay gas or ba ñu fay gës Sud Quotidien xëy ñu xamal ne Macky Sall mi ngi koy bàyyi xel ndax lu aju ci wàllu mine yooyee lii la ci xamle nee na dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo ci yëngu mën di ci tedd mën ci am teranga waaye it moom ay retombées yoo xamante ne ji nguurug Sénégal dina ko yëg askanu Sénégal dina ko yëg li ñëpp yëg moo di Karim Wade mi nga xamante ne ji kon waa cour répression enrichissement illicite wax nañu ci see ay mbiram lu aju ci commission d' ba santaane nañu yóbbu ko ci cour ba yéen a kaay bi nañu nag lu aju ci euh, li nga xam ne moo di mbiru renvoi këyit yi nga xam ne euh, mooy firndeel ne Karim Wade ca CREI yi leen yóbbu ba ñu ko ko joxee ngir mu signé ko moom Abdoulaye Wade dafa lànk kandaara ne du signé notification arrêté boobile tax observateur xëy na ci dikk ak ñun dem ca ba jeex direct info nañu moom Karim Wade li koy toppee moom moo rëy ne it bu ñu xaymaa ci li nga xamante ne ji moom mooy eh, li ñu ne moom la amee ci teranga jo toogaale na ko ca ñu war a lijjanti ndax lew naaw lewul toll na ci 117 milliards téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñaar yéen a kaay bii di quotidien mel na ko jot ca liggéeyu ak xëy yi xëy ñu ko euh, faram-fàcceel mu di kon direct info nii la ñu ko waxee euh, Karim xam ne moo di Arsenal am na fa lu toll euh, am na BPS am fa neuf milliards ak lu teg Dalia un milliard ak am na ñaari kër Point E am na benn kër ci Sicap ñu Wade dafa bañ ne du ko signé ba noppi barricade wu làq boppam ngir daal ñu bañ euh, li nga xamante ji mooy gars di ko sonal wal faj nañu moom Karim Wade bu mu sukkandiku ci waa PDS ngir ñu taxawu ko ne ñoom seen jëmi bopp taluñu ko bu dee moom ñoom rek Karim Wade amagul kon ku ko xeexal journal bi nañu la tal ñoom ñooñe muy kuy jiite ci parti bi la tal moo di seen parti bi di parti démocratique sénégalais nga xamante ji boobu léegi kenn xamul a Abdoulaye Wade nag la mu bëgg moo dañu tertu ko tertu bu rëy ngir mën a impressionné kii di Macky ba tey euh, sàkku na ci Pape Diop njiital bokk gis-gis mu ñëw euh, tertu si ko Pape Diop it mi ngi dajale aw nitam populaire moo ñu ko wax jigéeni PDS yéen a kaay bi nañu caaxaane ko tey jii ci yor yor gi 11 heures dinañu amal ab daje bu ñu demee ba 17 waa parti bi yépp amal lu aju ci comité directeur spécial ngir waajal ñëwuk Abdoulaye euh, Wade gi ma dem a ñi dañu xam lamb lool bokk na ci alaaji Ngagne Diagne euh, bu télévision Futur Média Ngagne Diagne bu RFM Ngagne Diagne bu Rofor lii la wax waa sunu lamb nee moom poids buy gi gisu ci inconvénient Max Bargane tontu ko waxam moo di bu fekkente ne du ko yeexal inconvénient kon mën na cee bañ am li ñuy bañ rek mooy poids boobee daal di koy yeexal ñoom ñaar mu di guy gi ak euh, zos yenn kaay bi nañu ñu war a wax ak ñoom la ñu nag ndax tuuti ko nan mortal combat am keroog ba ñuy def seen face to face kaay bi nañu lan na loon andi mortal combat ga mi ngi nii moo di ay saaga ak sosalaate ci diggante guy gi ak zos Pape Cheikh ba altine ba talaata ak jàmm. merci Mohamed. jaajëf jërëjëf merci.